ma nga fay ñaawlu doxalin gi ci wàllu parrainage yi nag ba noppi di joxe ay xibaar ci Adji Sarr moo doonoon ganu grand toxal ci réew mi TV Sud Quotidien nag na ñaar fukki candidat moom la ñu tànn ñu fas yéene jongante ngir mën a wuutu Macky Sall ci toog gi nag yéenekaay bi ne jaaxle gi léegi jeex na conseil constitutionnel fësal na ñaar fukki candidat yi nga xam ne rek ñoo war a bokk ci jongante yi ñu war a amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 fi mu toll nii ñaar fukk la ñu nag yu fas yéene sëgg bëree ngir mën a xam ana kan mooy wuutu kii di président Macky Sall ci bopp réew Sénégal Karim Meïssa Wade di candidat parti démocratique sénégalais moom dañu ko rëkkale ndaxub double nationalité boo xam ne rek moom la ñuy laam-laamee boobaak léegi Ousmane Sonko moom it nag du bokk ginnaaw bi ñu ko daanee ci coow li nga xam ne rek moo doxoon ci digganteem ak Mame Mbaye Niang ñaar fukk ci lañ toll ñoom candidat yi nga xam ne rek ñoo fas yéene bokk ci la jongante Le Quotidien yëglekaay nag xam ne ne listub candidat yi war a jëm ci présidentielle yi fësal nañu ko Karim Meïssa Wade moom dañu ko rëkkale ndaxub double nationalité ñeneen ñu ñu rëkkale di bugaan Bougane Gueye Dany docteur Abdourahmane Diouf Aminata Touré ak yeneen i candidat ñoom nag li ñu bëgg jamono ji mooy ñu daat leen di boolewaat ci jongante bi Aminata Touré nag ne bu ñu toogee yaccaaral nag daañu salfaañe suñuy démocratie fekk jamono joojee nag parti démocratique sénégalais ma ngay attaqué nag ñaari membre yu bokk ca conseil constitutionnel la la séglekaay dikk ba tey ci ñaar fukki candidat yi nga xam ne rek ñoom la waa conseil constitutionnel tànn nag yëglekaay bi di bés bi le jour di peeko le vent est tiré teg ci na Karim Meïssa Wade nag du bokk ci les ndax nag coow li nga xam ne moo ko topp ci double nationalité député libéraux yi nag daal di soupçonné ñaari membre yi bokk ci conseil constitutionnel jàpp ne dañ leen a ger Amadou Ba di rafetlu ci geneen wàll nag liggéey bi nga xam ne moom la kuréel googee amal jàpp ne lii dafay fësal ne démocratie moom ñu ngi koy doxal bu baax ci réewu Sénégal juróom-ñaari sages yi séddale nañu vin bi l'observateur moo xëy fësal ko ci xëtam bu njëkk dellu siwaat ci dogal gi nga xam ne rek moom la conseil daal di fësal ci liste yi nga xam ne moo ñeel candidat yi war a dem ci élection yi Karim Wade nag ma nga yuuxu scandale parti démocratique sénégalais jàpp na lii am na ger gu ci nekk ak it lees waxul ñaari naqar moom la Karim Meïssa Wade daal di boole Walf Quotidien nag moo ko xamle mu ne candidat bii perte na nationalité française ba noppi ñu daal di invalider ab candidature am yéenekaay bi ne Thierno Alassane Sall li lépp nag moo ko yóbbee candidat parti démocratique sénégalais bi ci ñàkk bokkam ñeel élection présidentielle yu 25 février yëglekaay bii di Le Soleil daal di leeral nag lu jëm ci candidat bu Karim Wade ci élection présidentielle yi mu ne nag dafa déposé ay dossier am nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum te jamono joojee nag ma ngay wéy di des ak nationalité française am fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier atum 2024 ko ko nangul te boobee nag fekk na mu def déclaration d'honneur ngir xamle nag ne jamono ji nag nationalité sénégalaise képp la am te loolee nag amul juróom-ñaari sages yi nag wax nañu yéenekaay bii di enquête daal di xam ne ne Benno Bokk Yaakaar ak Pastef nag fi message yi yëglekaay bii nag laaj boobee la samp niki tey jii Vox Populi nag dellu siwaat ci ñaar fukki candidat yi nga xam ne rek ñoom la ñu tànn bokk na ci Boubacar Camara Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Boun Abdallah Dionne Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Bassirou Diomaye Faye ak Thierno Alassane Sall jeexalee yëglekaay ak Libération mi nga xam ne rek dellu siwaat na ci ab élève bu am fukki ak juróom la ñu dóor ba mu ñàkk bakkanam ñu doon ko jéem a suul ay waajuram nag ñoo def lu ni ca Sédhiou enquête bi nag la mu fësal bokk na ci élève boobee dafa demoon ci ab soirée dansante te tàggoowul loolee nag moo waral ba Adam Faxa nekk ca collège bu Goudomp nag ay waajuram dóor ko dóor yu metti mu daal di caa jëlee ay gaañu gaañu ginnaaw gi nag mu ñàkk bakkanam ay waajuram nag doon ko jéem a suul ci la dëkkandoo yi nag daal di ko yëgal waa gendarmerie jamono ji nag teg nañu loxo waajur yi ba defeere